ñoo di ki nga xam ne ñoo di euh, Serigne am Khady Fall di euh, jàmbaar joo xamante ni at mu jot mooy toggee fi nga xam ne moo di diwaan bu euh, fi nga xam ne moo di Diourbel délégation bu am solo ngeen di seen nii ñooy yegg si nii fii nga xam ne moo di ci diwaan bu Touba di lu am solo loo xam ne at mu jot da koy def gis ngeen rek ni nga xam ne noonu la ñuy dugg di waa kër Sëriñ Amdi Khady Fall tey jii di ñetteelu fan ci weeru koor di lu am solo loo xam ne tey jii macha allah moom ngeen gis nii ñooy yegg si nii fi nga xam ne moo si diwaan bu Touba ngir rek jébbal seen liggéey ki nga xam ne moo di xalif général des mourides Serigne Mountakha Mbacké moom mi nga xam ne daanaka bi koor gi tàmbalee ba léegi mi ngi kër gu mag di kër mag moom di fa amal njàngum alxuraan ak njàngum xasaayit ci ngoon gi ànd kook mboolem taalibe yi kon ñii di dugg nii ñoo di waa kër Sëriñ Amdi Khady Fall ñooy yegg si fii nga xam ne moo di ci diwaan bu Touba ngir rek joxe li nga xam ne moo di seeni ndogu. hablando jërëjëf mbokk yi ñu bàyyi xel euh, ñi ngi fii ci diwaan bu Touba euh, ci euh, tàkku takkusaani aljuma tey jii fukki fan ak juróom-benn ci weeru avril ci atum 2021 tey jii nag euh, àjjuma ji jot ni ko baaxoo def euh, kii nga xam ne moo di sëriñ Amdi euh, Khady Fall ni mu ko baaxoo def at mu jot di andi ay ndog yoo xamante ni da koy jébbal ki fi nekkal si Ahmadou Bamba Khadim Rasoul di Serigne Mountakha kon Serigne Amdi Khady mooy dugg si nii ak ñi nga xam ne ñoo di am mbooloom ci camion yu mag yi nga xam ne moom ngay seen yëpp rek mu def ko ay bernde ngir rek jébbal ko ki nga xam ne moo fi nekkal Serigne Touba Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul muy liggéey bu am solo ma ngi ko fële nga xam ne moo di ca diwaan bu Diourbel di ko andi fii nga xam ne moo di diwaan bu Touba kon ñu baleen rek ngeen ànd ak oto yi nga xamante ni ñoo def xéewal yi nga xam ne moo bàyyeekoo ci Serigne Amdi Khady Fall ak délégation bu takk bi nga xam ne moom la Serigne bi àndal ngir rek euh, ñëw fii nga xamante ni moo di ci diwaan bu Touba ngir jébbal seenub liggéey kon ñu bare ngeen ànd ak li nga xam ne moo aju ci wàllum ndog yi fii ci diwaan bu Touba en ci Sénégo TV ñu ak yéen li nga xam ne moo di liggéey bi